Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. waaw dama liir seen benn vidéo bu ngeen def jëmale ko ci am koy wax ci sénégalais yi nekk fii ci Brésil di tudd ay soxna yi jàmbur ñoo xam ne jigéen ñu baax lañ ne ci dëkk bi di liggéey mu yàq seenub der naan danoo woyof sërëg xam nga mel na ku leen mës a tiim te loolu li muy wax dara amu ay jigéen lañ ñoo xam ne ñu respecté leen ñuy sëy seeni sëy fonk seen jëkkër xam nga mu yàq seenub der ba ojo kii boobu ngeen dugal ci YouTube bi moom la ñëpp di waxtaane te loolu dara amu ci kum doon sa ndaya wala sa sœur wala sa doom bu jigéen doo ko wax yooyu daa baaxut bu ngeen bëggee information fii am na ay nit ñu responsable ñoo xam ne lu fi mën di xew ñoom la police di wax waaw ku mel ne jëwriñ Cheikh Ndiaye mi ngi def liggéey bu rafet numéro am ku ko il est accessible ku ko woo mu jox la mu jox la information yu valable yoo xam ne yu concret lay doon yoo xam ne euh, yim lay jox information ambassade bu Sénégal sax mënu koo dindi waaw waaye ñii ay réglement de compte la ñuy régler yoo xam ne di yàq deri jàmbur yi waaw ndax dafa am ñoo xam ne dañuy régler ay compte yi. waaw cheikh bi macha allah ci kàddu yu am solo yi. Eh, ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo am na solo wax dëgg fa yàlla waaw waaye tamit xam nga eh, site bu nekk dafa am ay principe yoo xam ne xëy na ci lay doxee Euh, site bi euh, site la boo xamante ne ni askan wi ñoom ñoo ko moomal seen bopp euh, bu mbir xewee kenn ku ci nekk rek ak fu waay mënti nekk du rek ñi nekk Brésil mais même ñeneen ñi nekk biir Sénégal ak ñeneen nekk ci yeneen dëkk yi tamit ñoom xëy na ñoom tamit joxe nañ ci seen xalaat donc sous forme da wax sa xalaat lay doon kenn ku ci nekk joxe ci sa xalaat moom nag bi mu ootee daf ñu xamal ni carrément moom foofu la nekkoon ci Brésil moom ak ki nga xamante ni moo def jëf ji

wax ni man sama jabar euh, du kalaara euh, du Fat Samb te tamit man duma xaw ma kan xaw ma am na benn tour bu mu utiliser donc tur yi Bilal ci boppam ci message bi mu envoyé di menacer donc ci tur yi foofu leen ko déggee donc bu ñu gisee nit boo xam ne mën nañu indil ay explication ci audio boobu noonu vraiment dañuy gis ni information bu légal la pour ñu war ko mën a partager wax dëgg yàlla. waaw xam nga Bilal moom. information privée maanaam da doon ab vocal nit di wax ak moom ci privé xam nga waaw tudd ñooñu mu tudd waaye moom dafa tudd moom dafa moom moom lim def lu garaaw la kooku noonu lim def lu garaaw la xam nga yow xamoo Fat Samb xamoo Kalaara waaye ke dafa tudd ne eh, kee kii dafa dugg wax ni da nangam wax ñoom loo xam ne ruus naa ci sax jaaraat waaw ruus naa ci sax jaaraat waaw ndax dafa gudd tànk te nit boo xawwee suturaam ray nga ko muy dëgg du dëgg ndax yow fa mu àgg du man àggu fa du dëgg te li ba wér te wóor mooy ñooñu mu fi wax buñ ko gënut moom ñu leen maanaam te ñun ñëpp ay ay ay ay ay père de famille lañ buñ ko nekkut tey moom moom lañ fas yéene nekk suba dañoo fas yéene jur ay doom bàyyi fi dem waaw ñun ñëpp ci suuf la ñuy mujj waaw. ñun ñëpp mujj ku ne ku wéet ak sa bàmmeel maanaam àdduna bi lu jar yàq deru doomu aadama dafay amul te youtube loo ci xas dugal illaa yu mi diini la yow sax même yéen bu ngeen supprimer woon vidéo bi sax du tax vidéo bi des ndax nit ñi dañ ko téléchargé di ko paasant te nit koo gis dafa bàyyi ay bokk Sénégal bàyyi ñoo xam ne yéene nañ ko jàmm bàyyi ñu ko wut jàmm waaw kooku noonu kooku kooku mu wax moom xaw moom gaa yi identifié nañ ko xam nañ mooy kan Brésil gi bu fi tegatee tànk kenn dootu ko fi euh, ànd ak moom ndax du nit ku am sutura waaw lii muy wax sax amul wax waxuma naa ñu am ñii ma la wax ay jigéen ñi sëy lañu am jëkkër di sëy yow yaa bëgg na xam jikkoy Sénégal bu non nobee nga lànk sax buñ génnee yàq sa der waaw mais moom dafa affirmé ni dañoo woyof ay sër loolu sëñ bi loolu dafa ñaaw loolu nit nag koo gis ci ci ay nit nga bàyyeekoo maanaam nit koo gis dafa am famille am mbañum rus waaw jigéen ñooñu seen i jëkkër mësuñu leen fekk ci góor te buñ leen fa fekkoon nit ñi yëg ko te mësta xew waaye loolu mu leen tudde noonu yàq seenu der ndax bilaal moom moom moom la muy def wax na ko ku tàqalikook sagoom la rek kuy wër di rey nit ak menacé moom ku tàqalikook sa sago loo wax kenn du ko jàpp waaye yow nga dugg affirmé naan ay dañoo woyof sa rek di yàqub der loolu ñaaw na trop waaw lu ñaaw la def te jigéen ñi ne ci réew mi jigéen ñu am jom lañ jigen ñi ñoo man góor yi brésil gi jigen ñi fi nekk ñoo man góor ñi ay jigen ñu am jama fi nekk takk seeni sër di liggéey waaw sénégalais nag moo taamu kum nopp nga bañ mu yàq sa der waaw waaw yow nag sëñ bi borom baax nga yow moom nuru na ni yow yàq taxulaa jóg quoi moom moo dof di wax waxi dofam rek waaye audio yi nag maanaam soo ko mënoon a jël monté ko noonu mu ko monté dugal ko fi nga dugaloon bële waaw moom it moom danañ ci kontaan bu baax waaw ndax ñii mu yàq seenub der moom yàq gi mu yàq seenub der tiis na ma lool yàlla xam na ko. macha allah macha allah sang bi ci ci leeral yi eh, vraiment ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax leeral yi daf ci am solo euh, daf ciy am solo ndax itam ñun li rek mooy sunu taxawaay euh, képp koo xamante ne ni daal jox nga ñu information incha allahu rabbi daañu ko traité euh, dugal ko ci Sénégal ko defee ñëpp daal di ci mën a jot waaye rek pour dalal sa xel yàlla xam na ni day li ñuy dagg ci message yi par jour <laughs> depuis xew-xew bi am ak léegi message yi nga xam ni jot nañu ko yàlla mi xam na ni message bi ñu dugal mooy bi ci gën woyof ci li ñuy jot ci li ngeen di dund foofu ci Brésil waaw defe naa ni eh, bu doon a xaw weeg sutura xaw weeg sutura eh, yor nañu ay message yoo xam ne tey bis bu nu ko loon boo moytul Brésil googu dana xaw a yëngu waaw mais nag eh, ay nit lañu comme ni nga ko waxee aussi tamit bu mbir ñëwee boo gisee li tax manaan boo joxee sa xalaat di dinañ ko càmbar mooy que ne dinañ toog xoolaat bu baax a baax a baax ampleur bi mu war a mën a def donc c'était juste ça quoi pour leeral leeralal leen rek mais kàddu yi incha allah rabbi dina jàll ci kàttanu borom bi. jori maa ngi lay siyaar lépp lépp nekk ba lépp taw féex ba yaa ngi am jàmm rek waaw man de damaa nekk fii ci Brésil damaa déggoon benn waaye bu naan Saliou bu duggoon def benn euh, interview ak yéen wax ci wax joo xam ne daanaka moom li muy lépp dara leen ko waaw man maa ngi nekk fii ci Brésil daanaka am naa fi dix ans dëgg yàlla naa fi at dem naa Sénégal juróom benn yoon man daal a participer ci émission bi quoi su fekkente ne appel WhatsApp la tamit nga jëlee sama message nga def ma si bu dee dafay jar tamit may woote ligne direct après ma woote incha allahu rabbi ma gën leen indi leeral ci affaire Bilal Fall ak euh, Assane sëñ Assane yooyu yëpp waaw ndax lépp daanaka man maa ngi fi woon daal daanaka lépp man fi la ma fekk waaw incha allahu rabbi tey jéegul nag bu wér waaw waaleykum asalaam rahmatullah cheikh bi ñu ngi lay nuyu yow tamit di la ziare di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax waaw effectivement effectivement loolu mën naa ne mën naa ne waaw euh, bu la neexee itam li gën a yomb euh, bu la neexee nga envoyé ko audio whatsapp comme nii nga envoyé audio bi nii voilà bu la neexee tamit mun nga envoyé leeral bi yëpp mu nekk audio même bu dee dix minutes la même bu dee quinze minutes la euh, dinañ ko traité incha allah rabbi te itam dinañ ko dugal ci kàttanu borom bi. Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. vous dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul activer les cloche de notification bi de ngir bañ tardé benn ci ay vidéo yi ni def et maintenant bon visionnage. Question-réponse. Question-réponse. Question-réponse. Question-réponse. De rubrique Boubestac, Bounoulin indil Sénégal 4 TV mes artistes préférés mu xam muy acteur de cinéma yi artiste chanteur yi danseur yi batteur yi homme politique tous les célébrités du Sénégal dañuy jaar fii ci question réponse ngeen mën ci participer envoyez ñu en commentaire ban artiste wala bokk ban célébrité ngeen bëgg ñu inviter leen ko ak itam yan question ngeen bëgg ñu poser leen ko ci 77 507 27 29 hey bu fekkee gan nga ci kër gi profitul gaaw nga bës bouton abonnement bi te activer cloche de notification bi ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def et maintenant let's go